ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokki taalib yi rawatina ñi dëkke biir Tuuba ak li ko war ñi ngi leen di nuyu ci ndigalul ki fi toogal Sëriñ Tuuba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naaj yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba am ko ci liggéeyal lislaam suñu borom may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko ni mu ko bëggee. Serigne bi nee na mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di bokk nuyu bokk taalibe yëpp di jokk bokk ak lislaam gi nga xam ne moo ko booleeg ñun bokkal lislaam te suñu borom santaane ko innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na itam ñu xam ne ni ko sëriñ bi daa waxee rek inna cheytaana lakum aduwwan fattaxisuhu aduwwan benn noonu rek lañu am bu cheytaane kon mboolem ñu bokkal këri diine yi di këri lislaam ñu ngi leen di siyaare jokk bokku lislaam di jokk bokku der fàttali it nag mboolem ñi ngi xam ne bokku julli leen di bokki taal bi seen digg ñi ñu seqal lislaam jëpp ñu ci wax lu baax di ci wax rafet lépp loo xam ne mooy indi ak benn ci seen diggante ñu di ko gën a sàmm ngir xam ne ñoo bokk lislaam ji te ñoo bokk réew mi ginnaaw loolu nag sëriñ bi kàddu yi ngi xam ne yëkkati ne ko jëme ko ci bokkiteel bi ndax lii mu ma sant itte ji ko it la itte ji ko ñor la moo tax ni ko sëriñ Abdul Ahad ka waxee xam ngeen ne bi ak Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee la yëkkati woon dëkk bi dénk ko Serigne Sidi bi nga xam ne ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw na itam yee salaat loola xamal ko ne ko ne ko ko Cheikh Sidi Mokhtar dénkoon nu ko ëpp ne ko ko dénke loolu war a Abdoul Ahad Ka wax léegi ci turu maire wu dëkk bi ndax maire bi alali sëriñ bi loolu itam lu mat di fàttali leen ndax Touba bokkut ak yeneen dëkk yi ci des kon ñu ngi nuyu ñëpp sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne mooy taw sëriñ bi ñëw na ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko koy sante ci lépp loo xam ne liggéey bi dañu di ko ànd ndénkaan di nekk ci loxoom nee na nag fas na yéene li ko ci war mooy na ko ñu jëkk ñi daa defe mooy wattu ak sàmm lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bi mu fas yéene ko wattu sàmm ko ngir xam ne ndénkaanu Sëriñ Tuubaa la ndénkaanu Sëriñ nag nee na képp ku muy àndal dëgg lay ànd ak yow kunu ma maa al xaq mahma kallafakumul amru moo tax waxam ji ji mu weesu yéen ñëpp ko déggandoo loolu rek la wax naa ko fàttali ci biir fàttali gi itam muy digal ñi nga xam ne yéenay chef de village yi tàmbalee ko ci délégué délégué de quartier yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam danaa nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgg ni itam noonu lay defe yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkonte ne mën na faa nekkal boppam moo fay nekkal boppam kon yéen ñi nga xam yéen lañ ko dénk nag tàmbalee kon ci délégué délégué de quartier bi nañ xam ne fuñ nekk ñoo fa war a nekk ndawi sëriñ bi nekk fa ay loxoom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa na ko ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis du dara ba xam ne yow ñu mate nga jata jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñun dëkkal war nañ ñu gën a sàmmonteeg ndigal yi fi joxoon daaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maa si gën a farlu gën cee góorgóorlu képp koo xam ne gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ca na ko war a saafara bu la ta chef de village ba la yërif nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barab war ngaa góorgóorlu ci te taalib yi ndax loolu la fa bàyyi. bu tëyee chef de village ba mu a ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci ki teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg muy saytu ni dëkk bi doxe ci wàllu adduna bi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci quartier nga xam ne ndawul sëriñ bi la loo xam ne bëggati nga ko wala nga xalaat ko na nga dem ba ci moom nga àgge ko bu tey ñoom ñëpp nag. danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam rek bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lijjanti te sëriñ bi du ko yëg fa saasa ba def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la yoru moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon ci lifaam yu jëkk yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mi ngi ñaan ñëpp ñu sàmmule ko loolu nga xam ne ndono la di ndénkaanu Sëriñ Tuubaa ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma ndigal dama ñetti weer yu jotate mboolem chef de village ak délégué de quartier yi naay dajee ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ nga fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool luñ ci mën a saafar bala ñu dajawaat loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne sëriñ jox na ko danañ ko sàmmonte kon loolu mooy la jiitu ci ndigal yi la ca desaatit mooy li boo waxoon ne bëggatu ko fee dégg mooy di saafaraal sa bopp loolu itam ñu ngi koy feddali waat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggante jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek naa fexe ba mu agsi sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu Porokhane nga mu fattaxatan lahumul abwaab la jëmm la joo xam ne ubbalul ay buntam kenn foo waaye jógee rek boo agsee dana la diglu ak koo mën a doon te dana la jox ci waxtu loo xam ne sax boo gàttam xel li fi bàyyiwoo sëriñ bi du bàyyi kon Cheikh Mouhamadou tax yàlla def na kilifa la goo xam ne kilifa gu ma sëkkalam doon la kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel yàlla def it tawfeex ci moom ndax képp ku fi ma sa nekk sëriñ Tuubaa rek tërbiyewu na ba làq sa ngiram nam daal doxe ak ay kilifaam itam nag ñun ñëpp nañu fas yéene doxee moom noonu te yàlla defal na ko ci tawfeex ak ñëpp noonu la ñuy doxee moom. danaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeeg sama jëmm dama koy dama koy bàyyeeg sama jëmm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene àndee moom noonu ngir xam ne ku ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi googu kilifa ku ko yàlla defal war ngaa gën a daloo xel te ko waxtu wu nekk mu yàgg fi te ànd ak ngir xam ne moom lépp loo xam ne war na ko rek xam na ko te dana ko def ndax ba ci yi fi mujj ca tàmbali ba lam ci jëkk wax ba ca mujj la genn kàddu rek la dafa wax ne jàngoro ji mbindeef mu yàlla wàccee ci kaw suuf la waxtu woo ko jeexalee rek mu jeex nee na Sénégal tam bañ amee Serigne Touba rek la ñu am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ni ku xam diggam ak boroom la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu ci ci saaxir si rek daa bëgg a wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wan nit ñi fay jaar moo tax yii weesu nag lépp lu ci xew rek def na ca war a def taxaw na ca la mu war a taxawi ci nu ñoo njëkk ak nu ñu bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci diggam soxla nit ñi ñëpp seen xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu ko kon la Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil daa wax rek mi ngi ñaanal Cheikh Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtala ak soxna ma daa waxoon ne seelukat xamut li xaddi di dajek ba ba ba ndox mi agsiwut ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor yu agsiwut ci ñun kat Cheikh Mouhamadou Mountakha tax kon nag yàlla na fi yàgg te ànd wax na ma it nag ne mi ngi jot li taalib yi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Sëriñ Tuubaa loolu itam lu ko ñor la dane ma nag ma santal ñi ma bokkal Sëriñ Tuubaa ndax liggéey Sëriñ Tuubaa bii kat ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp daal di yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga yéene yéene woo ko sa bopp ñaan loolu yëg ko mboolem ñi Serigne Touba defaroon seeni maam dégg nga lim leen seeral wax na ne foo gisal la naqare bayu ko ci ñoom ñooñu itam na seen maam yi àndoon ak Serigne Touba nañ ko moom ndax kenn ku ci ne addiye ja nga daa joxe yokk nga ko kenn ku ci ne itam yéene nga ko ndam yéene goo xam ne boo soñoon ku fi jaar te am ndam rek boo ko yëpp ñaanal loolu lépp nag na ngeen xam ne xam na ko waaye nag Sëriñ Tuubaa mi tax ngeen àndee ak moom noonu mi ngi leen ñaanal kenn ku ci ne la nga koy yéene ak la nga jëf ci moom yàlla ko Sëriñ Tuubaa xëy taalibe Sëriñ yi nag nee na ñoom moom dafa jàpp boppam ci biir taalibe yi ndax nee na Sëriñ Tuubaa dafa masa daje ca njaareem def bokk yi nii ci wetu ndajoor def taalibe yi ci wetu càmmoñ daana yéen taalibe yi na ngeen ma rus ci sama bokk yi ndax ñoom man rek lañ am daan yéen sama bokk yi itam na ngeen ma moytu ci sama taalibe yi ndax ñoom man rek man ñoom man rek man rek ñoom ma ñoom man rek la am ñaan nag moom ba mu déggee wax jooju la jël boppam jaay ak njuréelam jënd ko taalibe jàppe boppam ci biir taalibe yi moo tax nag yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmaande jum dox diggéen mu ñoom nee itam ñu ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen a bëgg dimbale te nit boo ko bëggee dimbale danga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm leen ndax cant gi ngërëm di mooy daaw fii leen toogoon mu santaane fi ay santaane te boobu bu mu koy santaane itam dafa woo Serigne Sidi miy jëriñam tegaat ko ci loxoom Serigne Sidi wooluwaat Serigne Modou Lo Ngaabu mu jër Safir Amaan tegaat ko ci loxoom muy tere yi mu doon tere ci dëkk bi nee ba mu ko teree taalib bi yëpp yëpp yëpp maase nañ ci jëfe ko ba kenn desut nee na loola xam na ne seen bopp ngeen koy defal waaye nag moom lu fi nekkee Sëriñ Tuubaa te fàttali leen digal li ni ngeen ko jëfee sant na leen ci gërëm leen ci li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax boobu itam lépp xam na ni mu demee ndax junjoon na ko boppam leeral na ko ko jëru del siwaat waaye ba mu yëkkatee kenn ku ci la nga doon def da ko bàyyi wëlbatiku la la naqiroon nga def ko muy lu la neex nee na loolu nag xam na ko kon nag mu ngi leen di ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon Serigne Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal tawféex te xam ne Serigne Touba kat waxoon na ne waxtu ma sante nit def day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal la nag day dellu siwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye aw fu ma ne kon jëfe ndigal rek am solo kon nag sëriñ bi nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci dëkk bi xam ne sëriñ Tuubaa ba muy gàddaay di sanc dëkk bi dafa am lu taxoon mu sanc dëkk bi dafa waxoon ne ak daw li ci loxo nit ñi wax na itam li tax ma sanc dëkk bi mooy jàng ak jàngale ak ak tërbiyu nee na loolu Sëriñ Tuubaa sosi woon dëkk bi nag waxtu wu nekk nañuy fexe ba ba nañuy fexe ba góorgóorlu ba di ko sàmmali li taxoon mu sanc mu sanc dëkk bi ba képp koo xam ne gis na ko dëkk ci dëkk bi rek bu la gisee xam ne kii kat yarub dëkk bi la te loolu Serigne Touba faggul nañu ko la ca des nag jub jub jëm cee rek lay doon la ca dolli ko waate mooy dëkk bi dëkku xéewal la Serigne Touba dafa ñaanoon suñu borom ne ko ci mat la wu foofu ni wa maskani salli fu jaar yi wamnu na alal ahli bima in jaar yi kon yàlla nañu yàlla musal ci ñu dëkk ci dëkk bi te fi nekkee lu neexul sëriñ bi nit ñi nga xam ne dafa ñaanoon ne wajbuluhal xayra min al jihaati assiti wakfiha anil afati loola war a Tuubaa lu jamono naqari naqar lu mu diis diis doo dégg doo dugg ci génn kër ba xiif wala nga mar loolu pàggu defu Sëriñ Tuubaa la moo ñaanoon suñu borom itam xamal ko ne ko wax ne wali siwaaya yantahi day day xus zaman xat-xat xat-xati jamono jëm na ci futu man tayifa xocho yi tayifa xoda yi kon nag la ci des nee na xam loolu la war kon dëkk yu bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañ xam ne fàgguteefu Serigne Touba boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye euh, fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam moo dox suñu borom may ko loolu. ni ñu ñu fàggule fàggule rek euh, wax ne wan fi ba ba wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha looloo waral mbas ñi fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne. butul woon ak li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon bu toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek dañ ko war a def kon waaye jàngoro ji ko dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni bindoo da xam ne Sëriñ Tuubaa aar na la ci loolu kenn nattable ko ndax boo xoolee Ndakaaru li mu ëppee Touba bëriwut te boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp fii kon loolu lépp itam ñoo xam ne pàgguteef Sëriñ Touba bu mu fàggul waa dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yaxmadoo ala daawudo shukran li ñuy fayee Sëriñ Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag sëriñ bi neen mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mu ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee li mu santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexa ba gën a sekkar ci tool yi yooyu yëpp itam na nga ko defoon euh, sëriñ si Abdou Latif moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góorgóorlu laaj ci fexe ba nañ ko defoon ànd ko njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbo ci jiitale sëriñ Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la ko tegoon ci loxoom euh, bu mu ci àggee lépp dis na ko leeral ndax dëkk bi itam ku fi ñëw rek yaakaar la fi indi ndax Serigne Touba dafa wax ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi moo tax sëriñ bi bu sañoon kenn nekk ci dëkk bi di tumuranke looloo waral itam mu ngi sant taalibe yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci biir loolu ndax lu mel ne waa Touba ca kanam xam nga ne diggante daaw ba ren jëf yu bëree bëri jëf nañ ko ci dëkk bi ci wàllu leeral dëkk bi wàllu setal dëkk bi wàllu jëmbat fii garab di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi mooy ñaar bi di Abdou Lahad Ka kon ñoom itam sëriñ bi di sant di sant mboolem daayira yi nga xam ne quartier yëpp boo dem lii jamono ji xewal ngir bëgg fépp sa Touba ñoo ci jiitu ndax ba ñuy xewal yàgg na te lépp itam ci pëstéef lañ ko def yaakaar payoog suñu Touba amu ci kenn koo xam ñii la ci jox dërëm kon sëriñ bi nee na taalibe yi daal mi ngi leen sant di leen gërëm di leen xamale itam lim leen ëmbal. mooy yërmande li mu leen àndal li mu leen euh, ëmbal mooy bëgg ñëpp jariñu li mu leen ëmbal mooy bëgg ñëpp seen digg sëñ Tuubaa euh, seen posté waxtu wu nekk muy gën a yees di gën a sell te lool nag sëñ Tuubaa mel leen fàggu na ko bi kon nag ñi ngi jeexale foofu kàddu ñëpp di sant ñëpp di fas yéene itam ñi ko sëriñ bi santaane ñëpp gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu jariñ te sëriñ bi kat. ku am coow ku am ku am yërmande ci nit ñi ndax koo xam ne amul waxtu nopp noppalu saa su xëyee bu guddi ginnaaw jaamu yàlla yi ma nga ci liggéey ba di yite nit ñi loolu nag Serigne Touba moo ko santaane woon ndax moo waxoon euh, Cheikh Mahodou Moustapha ak Cheikh Mahodou Farid ne leen seenu jaamu yàlla li ci ëpp ginnaaw li yàlla san farataal ci yéen mooy di jonjoon nit ñi di dékku seeni tartar ak seeni métti métti kon nag képp ku bokk ci Serigne Touba ña nga dëkkal di taalibe Serigne Touba war ngaa fexe bay xam ne li la Serigne Touba sant ci sa digge ñoom ndax waxoon na ne li ma leen warlool ci seen digge yéen mooy ak yëg ak itteewoo leneen li ci lépp maa koy defal sama bopp kon nag loolu na ko ñëpp xamee noonu kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.